الحب اللي عمره ما يشمت asalaamaaleykum mbokki déglukat yi seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall moo dellu siwaat ak yéen ci sunu émission kàddu gu sell gi te di leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di dellu di sant yàlla sunu boroom ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist
آه asalaamaaleykum mbokki auditeurs yi mbokk yi ñuy déglu ci sunu émission kàddu gu sell gi man seen doomu ndey seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall bokk ci njabootu Yeesu Christ fii ci Sénégal maa ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di nuyu ñépp ñi yewoo fii ci sunu réew mi di Sénégal di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi bitim réew mbokk yi nekk bitim réew di leen nuyu yéen ñépp ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ sunu waxtaanu tey nan dañuy wéyal rek ponk bi nga xam ne moom la ñu tàmbale woon ci fan yële ñu weesu mu jëm ci dellu si Yeesu Christ ci àddina maanaam ñaareelu ñëwam fii ci àddina ak mujju jamono ñu ubbi ci téere bu sell bi ci biibal bi ubbi ci kóllëre gu bees gi ubbi ci injil xaaj ba ñu jagleel Macë ci saar ñaar fukk ak ñeent aaya benn ba ñett lii la yàlla sunu boroom wax bi Yeesu waxee ba noppi mu génn ca kër yàlla ga dem noonu ay taalibeem ñëw ci moom ngir won ko tabaxi kër yàlla ga waaye mu tontu leen ne du gis ngeen yi yépp ca dëgg dëgg maa ngi leen koy wax lii lépp dana daanu ba doj dootul des ci kaw doj noonu bi nga xamee ne Yeesu toog na ca tundu oliw ya taalibeem yi ñëw ci moom ci wet ñu ne ko wax ñu kañ la loolu di am te luy tegtal ne yaa ngi ñëw te àddina di tukki ñu wéy di jàng itam ci injil la nga xam ne Yeesu Kirist wax na ko mu nekk ca xaaj ba ñu jagleel Matthieu ca saar ñaar fukk ak benn ca aaya ñaar fukk ak juróom ba ñaar fukk ak juróom ñaar Yeesu ne ay firnde dinañu feeñ ci jant bi ci weer wi ak ci biddéew yi ci kaw suuf xeet yi dinañu tiit jaaxle ndax riiru géej gi ak yëngu-yëngu duus yi bu boobaa nit ñi xëm ndax tiitaange bu ñuy xalaat musiba yi nar a wàcc ci àddina ndaxte dees na yëngal kàttani asamaan noonu dinañu gis doomu nit ki di ñëw ci niir yi ànd ak kàttan ak ndam lu rëy Seydina Isa almasi bi Yeesu Kirist wax ak ay taalibeem taalibe yi laaj ko ne ko wax ñu lan mooy tegtal yi nga xam ne dana tegtal ne yaa ngi dellusi te àddina ngi tukki wax ñu tegtal yi lan mooy li nga xam ne bu ñu ko gisee ñu xam ñaar yaa ngi dellusi soreetuloo te àddina ngi waaja tukki Yeesu Kirist daf leen waxoon na leen bés ba àddina di tukki kenn xamu ko mu ne leen pare leen ndaxte danaa dellusi itam wante nag danaa leen jox ay tegtal yoo xam ne boo leen ko gisee dangeen xam ne kat soreetuma àddina bu ñu xoolee nu muy doxee am na yoo xam ne boo ko gisee nga xam ne ah mbir sàngam de mi ngi waaj a am moo tax yeesu kirist daf leen wax ci injil xaaj ba ñu jagleel Matthieu ci saar ñaar fukk ak ñeent ci aaya fanweer ak ñaar mu ne jàng leen misaalu garabu fig ya fig ab xeetu garab la boo xam ne dafa bari ca biir israel mu ne leen boo xamee ne ay banqaasam duuñ nañu ay xobam seq xam ngeen ne nawet jege na mu ne leen boo leen xoolee banqaas yi mu am nu mu mel mu duun ngeen xool xob yi mu commencé set ngeen xam ne nawet jege na noonu itam boo leen gisee loolu lépp xam leen ne jege naa maa ngi ci bunt bi ñoom nag ay baykat lañu woon ay nappkat lañu woon taalibeem ya nga xam ne ñoo àndoon ak moom te nit ñu bari ñoo xam ne Yeesu Kirist daan wax ak ñoom ñu ci ëpp ay baykat lañu wala ay nappkat wala ay sàmm ba tax na dafa jël li nga xam ne ñoom xam nañ ko mu jox leen ko muy ab misaal mu ne leen boo leen gisee garab mu ko tàmbalee am benn melokaan da ngeen di xam ne nawet soreetul kon tegtal yii nag ma leen di jox boo leen ko tàmbalee gis ci biir àddina xam leen ne soreetuma xam leen ne soreetuma ma leen waxoon ne yàlla sunu boroom dafa ñu jox tegtal yooyu lu mu ci jublu yiw ak yërmandeem ak laabiir gamu laabiir moo tax mu jox doomi aadama ay tegtal yedd ko ne ko kat boo gisee lii ak lii xamal ne mbir sàngam dana am boo leen gisee lii di tàmbali xew ci biir àddina yéen ña nga xam ne ragal ngeen ma yéen ña nga xam ne bàyyi ngeen xel ci man ah pare leen xam ne àddinaa ngi waaj a tukki te Yeesu Kirist mi ngi ci bunt bi yegsi na loolu nag yiw ak yërmandeem képp la la mu ci jublu mooy ñu bañ a am betteel wolof dafay léeb naan lu la bett ëpp la doole wante yàlla sunu boroom bettuñu moo tax Yeesu doon wax ay taalibeem doon wax nit ña ko toppoon ne leen kat yëgal naa leen lépp loolu mooy ameelu tuma leen benn bor yàlla sunu boroom yëgal nañu lépp xamal nañu lépp ameeluñu dara moo tax mu jox ñu ay tegtal Yeesu Kirist di wax naan ci injiil xaaj ba ñu jagleel Matthieu ci saar ñaar fukk ak ñeent ci aaya juróom mu joxe benn tegtal nee na ñu bare dinañu ñëw di mbubboo sama tur naan maa di Christ te danañu nax ñu bari mu wax ko ay taalibeem ne leen boo leen toogee ci mujjug jamono te ngeen xam ne soreetuma bu boobaa da ngeen gis ci àddina ñu bari ñoo xam ne danañ jóg naan ñoom ñooy man te ñooñu sax dana nax ñu bari te loolu dafa am ci àddina dafa am ci àddina bari na foo xam ne boo fa demee nga gis nit ñoo xam ne ña ngay jàngale ña ngay wax loo xam ne dañuy mbubboo ku sell ki Yeesu Kirist dañ koy mbubboo wante ci dëgg-dëgg gëmuñu ko dañuy naxaate lañuy wax ak lañuy dund wuute woo te la nga xam ne moo leen yitteel du jëmal nit ñi ci Kirist ci boroom bi wante la leen yitteel mooy seen bakkan wax boobu mën nañ ko gën a yaatal mën nañu dem ba wax ci ña nga xam ne dañuy mbubboo sunu boroom wante la leen yitteel mooy seen bopp loolu day am mujjub jamono dañuy mbubboo sunu boroom dañuy mbubboo diine wante la leen yitteel mooy seen bakkan dañuy mbubboo sunu boroom dañuy mbubboo diine wante dañuy fent seeni wax seeni kaddu seeni jàngale joo xam ne dëppoowul ak lu sunu boroom wax da ngay gis ci sunu jàngu yi ci biir àddina ñoo xam ne dañuy mbubboo yeesu christ wante la ñuy jàngale boo jeexee ci téere bu sell ba nga xam ne moom fa la yàlla sunu boroom waxee ñun la ñuy wax doo ko fa fekk da ngay gis ci àddina ñoo xam ne dañuy mbubboo sunu boroom di jàngale ci turu sunu boroom di mbubboo diine wante lañu lay wax mënuloo ubbi téere bu sell ba fa fekk ko ko dëppoowul ak li sunu boroom wax yeesu christ nag ne ñu mel noonu dana bari ci mujjug jamono nee na nag ñooñu dañuy naxaate ndaxte dañu toll mujjug jamono nit ñi dañuy bëgg a dégg li leen neex lay féexal seen xol boo leen waxee fukki kaddu fukki baat dañu bëgg fukk yépp nekk loo xam ne da leen nii neex day féexal seen xol wante boo leen indilee la sunu boroom wax ñu tàmbali la dëddu moo tax nit ñooñu nga xam ne nag dañ leen wax la ñu bëgg a dégg nit ñooñu dañuy fës ci biir àddina dañuy am mbooloo ndaxte kanaan la ponk ya yàlla sunu boroom yépp jëlal nga sànni fële te nga topp li ma la wax xam nga ne loolu kenn fekk ko ci li sunu yàlla sunu boroom wax waxul loolu waxul loolu yeesu christ ne ñu bari dana ñëw mbubboo sama tur ci biir àddina te dafa am dañuy ñëw di naxaate ndaxte nit ñi loolu la ñu bëgg a dégg seen lépp mat na seen lépp baax na yéen kay texe ngeen ba pare yéen kay nii nii loolu la nit ñi bëgg a dégg bu boobaa ñu nekk ci la leen neex wante ku leeni woo ci sunu boroom ku leeni wax lañu sunu boroom wax bu boobaa dañ lay dëddu dañ lay dëddu boo jëlee sa baaraam duut ca la nga xam ne mooy góomb ñu daw la te yàlla sunu boroom day duut baaraam góom yi ngir faj ñu yeesu christ nag ne yu mel noonu day fes ci mujjub jamono mu teg ci ne dinañu nax ñu bari danañu nax ñu bari mujjub jamono ñu bari danañ jóg mbubboo sunu boroom di naxaate di naxaate mujjub jamono naxaate dafay fes ci biir àddina wante ba ca gën a yées nag mooy ba nga xam ne dañ koy jaaree ci sunu boroom ngir nax la ngir nax la moo tax mu ne ñu bari dana ñëw mbubboo sama tur te dana ñu nax ñu bari itam dana ñëw di wax naan Christ Christ Yeesu Christ wante seen bakkana leen jiital addinaa leen jiital àddinaa leen soxal seen teraanga àddina moo leen soxal wante yàlla la ñuy mbubboo christ la ñuy mbubboo diine la ñuy mbubboo wax la nga xam ne moom la nit ñi bëgg a dégg kenn bëggul dégg ñu ne la kat boo toppee lii nga nekkee da nga alku kenn bëggu ko boo nekkee ca naka su dul noonu nit ñëw ne la yàlla sunu boroom kat nee na lii boo ci wéyee da nga alku boo deful ndànk kan ko wax daw la dootul ñëw ci yow nit ñi la ñu bëgg a dégg mooy li neex seen nopp li féexal seen xol nekk leen ci li ngeen nekk maa leen yoreel seen àddina ak seen alaxira yéen seen lépp mat na lu leen neex def leen liggéeyal nañ leen ba pare loolu la nit ñi bëgg a dégg yàlla sunu boroom nag ne yu mel noonu dana fes ci mujjub jamono waaw ndaxte mbir mi li ñu bëgg mooy lu yomb ñun loolu la ñu bëgg lu yomb nekkal ci loola neex maa la yoreel sa àddina ak alaxira liggéeyal naa la ba pare yeesu christ ne yu mel noonu nag dana fés ci biir àddina ci mujjub jamono kon ñu déglu tuuti cant balaa ñu ñëw ci ñaareelu xaaju waxtaan wi
Hallelujah. Hallelujah. الإله قدير الملوك. Hallelujah.
kon ñu wéy ci waxtaan wi ci tegtal ya nga xam ne yeesu christ joxe na ko ngir ñu mën a xam ñaareelu ñëwam fii ci kaw suuf ak àdduna suy tukki mu wax ci injil xaaj ba ñu jagleel Matthieu ci saar ñaar fukk ak ñeent aaya juróom benn nee na di ngeen dégg ay xare ak coowi xare ca saar ca aaya juróom-ñaar mu ne xeet dina jóg xeex ak weneen xeet réew xeex ak meneen réew xeex dina gën a tar ci mujjug jamono diggante xeet ak xeet réew ak réew mu ne leen loolu dana am da ngeen gis xeex bu bari am ci biir àddina ak coowi xeex ay nit ñuy dëkkante ay xeet yuy dëkkante ay dëkk yuy dëkkante te loolu fës na ci biir àddina bu ñu weesoo sax xeex diggante xeet ak xeet diggante dëkk ak dëkk dañuy xool rek sunu dëkk bi tuur deret ni mu ci baree bu ñu xoolee Sénégal rek loolu xeetu xeex la ni tuur deret baree ci biir àddina xeet dana jóg xeex ak beneen xeet gis nañ fi lii xew ci biir àddina gis nañ fi li xewoon ci sunu dëkk mbokk yële di Rwanda gis nañu la xew Burundi gis nañu sax li xew ci sunu dëkk ñun Sénégal da ngay toog yenn saa yi nga dégg ne kat ay sàmm xeex nañu ak ay baykat xeet sàngam xeex na ak xeet sàngam yenn saa yi nag ñu nëpp nëppal ko yenn saa yi ñu jóg mu am ñu jóg dox ci ay tànku jàmm ba mbir mi sedd loolu am na wante am na dañuy xeex suñu biir dañuy xeex suñu biir da ngay dem ci dëkk yi dafa am ci dëkk yépp ba ci dëkku nasaraan yi da ngay dem gis ay xeet ci biir nasaraan yi yuy xeex ak beneen xeet ak façon ba ñuy xeexee nag wante ñu ngi ci xeex da ngay gis xeet koo xam ne day nekk ci dëkk buntu xatal beneen xeet nekk seen kaw du leen may benn cër ca dëkk ba loolu am na da ngay gis xeet jóg taxaw ne xeet sàngamkat yéen diine sàngam ngeen gëm seen diine googu nag doo leen ko fi dund day am yu mel noonu mi ngi ci biir àddina mu ne xeet dana xeex ak xeet réew xeex ak réew te ba léegi dëkkante bi am na ci biir àddina di dànkaafu sa moroom tuur deret bari loolu lépp nag boo ko gisee sunu boroom dafa ñu ko gën a leeralal ci kóllëre gu bees bi ci ñaareelu bataaxal ba ñu jagleel Timote ci saar ñett ci aaye ñett mu ne ci mujjug jamono nit ñi danañu soxor te bañ lu baax nee na nit ñi dañuy soxor soxor nag coxor moo indi lu mel noonu xol yu dëgër xol yu ñuul xol yoo xam ne sunu boroom nekkatu fa jëmm yoo xam ne tënkootuñu ci sunu boroom wante ñi ngi tënku ci àddina képp moo waral yu mel noonu di am ku nekk di won sa moroom sa bopp da ngay xeex ak nit dëkk day jóg di xeex ak dëkk loolu am na fi xeet di xeex ak xeet nit askan di jóg di xeex ak beneen askan ndax diineem te ku nekk war a mën a dund sa diine na nga ko bëggee ku nekk war a mën a gëm la nga gëm dund ko na nga ko bëggee wante coxor day bari ci biir àddina dafa am ci biir àddina bu ñu seetloo loolu lu nekk la moo tax yàlla sunu borom li ñuy wax naan ñu ci mujjug jamono nit ñi dañuy soxor kenn du may dara sa morom kenn du may dara sa morom yeesu christ nag waxoon ko ay taalibe ne leen loolu bokk na ci ay tegtal yi nga xam ne dama leen koy jox muy firndeel mujjug jamono da ngeen dégg xeex ak coowi xeex dëkkante réew ak réew xeet ak xeet askan ak askan waaw mu ne loolu boo leen ko gisee xam leen ne ñi ngi ci mujjug jamono te bu ñu xoolee yu mel noonu am na ci biir àddina tuur deret yomb diggante nit ak moroomam di jël xeex di ko fajee mer fippu xeex mu jaral la sa bakkan da ngay fippu muñalante amatul muy diggante nit ak nit muy diggante dëkk ak dëkk da ngay nekk ci dëkk doxandee jóge fële ñëw yàlla sunu borom tàmbalee ko barkeel nga tàmbale yow di ko xool di ko xeex di ko wax naka sudul noonu boo demee ba ci biir sax jël xeetam gépp boole ko ci xeex bi ci xuloo bi loolu dafa bokk ci xeetu xeex yi nga xam ne coow yi nga xam ne coow yi xeex yi nga xam ne Yeesu Christ wax na ko ne loolu day am mujjug jamono day fés day tar xool leen sunu Sénégal gi tuurum deret ni mu fi yombe tuurum deret ni mu fi yombe jël bakkan ni mu fi yombe boo demee ci yeneen yi réew yi noonu la demee boo demee ci réewu tugal yi boo demee ci Afrique boo demee foo dem tey jii tuur bakkan jël bakkan tuur deret dafa yomb xeet di xeex ak xeet réew di xeex ak réew ñuy dëkkante mu ne nag loolu boo leen ko gisee xam leen ne dugg ngeen ci mujjug jamono mu wax ci injil xaaj ba ñu jagleel Matthieu ci aaya ci saar ñaar fukk ak ñeent ci aaya juróom ñaar mu ne dina am xiif xiif ci biir àddina nee na xiif day am ci biir àddina bu xeex amee xiif am am na dëkk yoo xam ne nit ñi dañ daan lekk ba suur tey jii boo fa demee xiifa nga fa na xeex am na dëkk yoo xam ne suuf sa dafa naat taw bari ndox bari gàncax ga wante kenn bayatul kenn goratul kenn yattatul kenn sàmmatul na xeex xiif dugg fa waxuma sax fa maral ga am wante da ngay dem ci bërëb goo xam ne boo jëlee lu tuuti nga bay fa nga góob lu bari wante nit ñi talatuñ ko ndax lan na xeex mu ne nag xiif dana am ci biir àddina laal askan yu bari bu ñu jàngee ci injil xaaj ba ñu jaglee lukk ca saar ñaar fukk ak benn ca aaya fukk ak benn mu ne wopp mbas dina am ci àddina sépp mu wax ko mu ne loolu bokk na ci tegtal yi nga xam ne moo leeni wan ne soreetuma te yéen a ngi ci mujjug jamono nee na wopp mbas dana wàcc ci àddina sépp te jamono yii ñuy dund gis nañu mbas mi nga xam ne law na ci biir àddina ñu koy wax lan covid 19 kenn mënu ci dara pexe amul amul dëkk goo xam ne mucc nga ci amul xeet goo xam ne mucc nga ci ña nga xam ne ñoo ëpp xam-xam ña nga xam ne jumtukaay yi bari na seen loxo ña nga xam ne xarañ nañu tey jii ñoom ñoo gën a loox ca mbir ma te sunu boroom yeesu nee na yu mel noonu nag day am ci mujjug jamono kon lii ñuy dund am na lu gën a tar loo xam ne ma nga ci kanam dana am te nee na yooyu da ngeen koy gis am na façon feebar yoo xam ne dugg na ci àddina kenn amul garab gi ba léegi xoolal sida cancer ni mu bare léegi tension ni mu bare diabète ni mu bare ah ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am na am na façon mu soj goo xam ne at bu nekk mu dugg ci europe dugg ci amérique la mu fay faat lu bari la xanaa kay dañ ko waxul day faat lu bari ba sax dañ naan nit ñi dem leen ñu leen ñu vacciner leen ngir ngeen mun a mucc ci feebar googu yeesu nag ne mujjub jamono mbas dina am ci àddina sépp te ba sunu borom wone yowaana la nga xam ne dana xew mujjub jamono mu nekk ci téere bu sell bi ci bible bi muy xaaj ba mujj ca kóllëre gu bees gi nouveau testament ñu koy wax peñu ci saar juróom benn aaya juróom ñaar ba juróom ñett ci nasaraan ñu koy wax apocalypse sunu borom dafa won li xew ci mujjub jamono yowaane mu won ko ni ku xoolal mu gis mu ne maa ngi gis fas wu lëndëm gawar ga tudd dee barsàq nga topp ci moom ñu jox ko sañ-sañ ci ñeenteelu xaaji àddina sépp ngir mu faat ak jaasi xiif mbas ak rabi àll yi te loolu ci mujjug jamono lay am yàlla sunu boroom won ab jaamam ne ko xoolal nga wax ba yowaa na gisee nee na sunu boroom daf ko won mujjug jamono nee na dafa gis mi ngi ci téere bu sell bi mi ngi ci kóllëre gu bees gi nouveau testament mi ngi ci xaaj ba ñu tuddee peñu ci saar juróom benn aaya juróom ñaar ba juróom ñett apocalypse 6 7 ba 8 nee na maa ngi gis fas wu lëndëm gawar baa nga tudd dee bar sàkka nga topp ci moom ñu jox ko sañ-sañ ci ñeenteelu xaaju àddina si maanaam lu ko neex mu def ci ñeenteelu xaaju àddina ci nit ñi boo leen xaajee ñeent benn xaaj ba dañu jox ko ci sañ-sañ nee na ngir lan sañ-sañ ba mooy lan mooy mu faat ak jaasi ak xiif ak mbas ak rabi àll yi kon ñu gis foofu sunu borom di ñu jox tegtal naan boo leen gisee mbas law ci biir àddina xam leen ne yéen a ngi ci mujjug jamono àddinaa ngi waaju tukki te ku tedd kaa ngi waaju ñëw Yeesu Christ mi ngi ci bunt bi mu jox ñu tegtal yooyu nee na xeex ak coowi xeex xeet dana xeex ak xeet deret dana tuuru lu bari tey jii am na gànnaay yoo xam ne mi ngi ci loxo ay dëkk benn rek buñ ko ci yëkkatee mu yàq àddina yépp nee na xiif dana ñëw ci biir àddina nee na wopp mbas te ba yàlla sunu borom waxaateeg ñun dafa ne ka nga xam ne dana ko yónni may ko sañ-sañ ci ñeenteelu xaaji àddina dana ko may mu faat nit ñi ndaxte barsàqa ngi ànd ak moom dee mi ngi ànd ak moom dee lu tudd te dana faat nit ñi ci xiif ci mbas ak ci rabu àll yi kon ñu gis yooyu muy xew ci biir àddina te dana gën a tar moo tax mbokk yi yàlla sunu boroom mi ngi ñuy yedd mi ngi ñuy yee mi ngi ñuy aar dellu siwaat leen ci man loolu la ñuy wax moo waral mu jox ñu tegtal yooyu ngir ñu mën a mucc ngir ñu mën a dellu ci moom te xam ne àdduna si ñu nekk day wéy te xam ne ku tedd kaa ngi nii di dellu si muy Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ kon ñu tëj fii waxtaanu tey wi di ñaan yàlla sunu boroom mu barkeel ñu may ñu dégg-dégg te saxal ci sunu xol ragal sunu boroom ma leen di sant di leen gërëm man seen mbokk seen xarit pasteur Ahmed Fall wasalaam
mbokki déglukat yi fii lañuy yemale sunu émission maa ngi leen di sant ci déglu bi te di leen fàttale sunu téléphone di 77 074 35 35 yàlla na yàlla sunu boroom wéy di leen barkeel tey wàcce ay yiwam ci seen kaw ci turu Seydina Isa almasi bi Yeesu Christ mën ngeen jokkoo ak ñun ci 77 074 35 35